Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu ki ñu bokkal plateau bi de Déthié Diop. di nuyu bépp auditeur euh, RFM. jërëjëf euh, Georges ñu koy nuyu bu baax di ko gërëm ndax euh, moo fi ne woon ci ci jamono yi nu weesu <laughs> Georges jërëjëf <laughs> Daouda Ba yow yaay porte-parole réew mi. parti Idrissa Seck bi nga xam ni tey lay dogoog Macky Sall ci li ngeen àndoon jamono yi nu weesu yëpp. ngeen junjoon ne fi réew mi tolloon ak coronavirus moo tax ngeen ànd ak Macky Sall ndax euh, jafe-jafe yi réew mi nekkee Idi nag nee na candidat la ci élection yi ñu ñëw te nee na Macky warta bokk moom moo war a bokk ak ñeneen xëy na euh, dina déposer lettre de démission nee na itam ministre yi nga xam ni ñooy bokk ci réew mi te ne ci gouvernement fi ñu toll di Yankhoba Diattara ak Ali Saleh Diop ñoom it dañuy dañuy génn. Euh, am na nag laam-laame gu bëri ci seen digg ak Macky Sall euh, am na ñu ne da ngeen ni da ngeen ni wure déggoo ngeen ndax tàggoo gi ci politique tàggoo gu seddee nii dafa de su koy faral di gis senegal am déet. waaw di dellu di la nuyu Babacar di euh, ñaan yàlla nangu suñu koor gi ñu génn di déwénati ñëpp di baal wax ñëpp di ñaan yàlla nangu aussi kooru euh, wayu jàngu bi suñu frères et sœurs yi oui Babacar xam nga président Idrissa Seck euh, comme ni nga ko waxee en 2020 dafa ñëw euh, répondre à la main tendue du président Macky Sall ñëw jàppale ko Macky Sall ci compétence su président Idrissa Seck ak ci expérience am mu ñu tolloon moment yoo xam ni réew mi jaxasoo woon na tiit bëri woon na euh, bala bëri woon na ci àdduna bi président Idrissa Seck de par son patriotisme mu mënoon nag toog dans son coin ne man maay chef de l'opposition mën naa xaar tranquillement 2024 ñëw campagne euh, jël réew mi ou ma nekk di yëngal euh, garab gi di yëngal réew mi maanaam nekk dans une position d'opposant jafe-jafe am ma ne naa ñëw xamb naa ñëw sànni toj nguur gi peut-être daanu ma jël defu ko mu patriote trop trop trop trop trop toujours soucieux de la paix de la stabilité du Sénégal soucieux également du développement du Sénégal bañoon Sénégal nërmeelu comme yeneen réew yu bëree bëree bëri ci Afrique ci monde bi nous répondre favorablement à la main tendue du président Macky Sall et si c'était à refaire il l'aurait refait par patriotisme. ak expérience am bi seen lay wi tamit dëgërul daal. ma ma ma ma ñëw ma yeggali lan la Idrissa Seck ñëwam ci Macky Sall lan la def ci réew mi ci askan wi ci xeex coronavirus rek indi koom-koom ci réew mi. waaw loolu am lan lan la ci def loolu am na conseil économique gi mu jiite te fas yéene ko ba tey euh, toju ko. alors loolu. am na ñu bëri ñu ràññee li mu ci def am na ñeneen ñu ràññeegul et bés bu jotee incha allah dinañ ko gën a euh, leeral mu leer ci bopp sénégalais yi euh, loolu ngay tuddee lay du lay euh, ku nekk nag mën na analyser de diverses manières mais du lay lu dëgër la lu tegu la parce que on a vu pays yu ñu wër. bi Covid bi ñëwee tension yi fa am. ak non yéen moom da ngeen vraiment da ngeen dem ci nguur gi pour noos. alors lo lo lo sa Seck soxlawul dem ci nguur pour noos jot nañu leeral kan mooy sa Seck ak parcours yàlla daf ko teral macha allah avant deux 2000. donc avant l'arrivée au pouvoir mu nekkoon chef d'entreprise yu bëri. gagné ay marché yu ba PL vingt du riz américain moo ko gagné woon mën naa ni foofu la commencé tedd donc Idrissa Seck ñëwul Sénégal pour wut si fi nguur wala xaalis au contraire dafa am xam-xamam am compétence yàlla baaxee ko ko mu ñëw yéene ko sénégalais yi yéene sénégalais yooyu d'abord moo waral en quinze bi mu nekkee ministre du commerce mu dem gis lu baax ca Washington muy internet mu ñëw fexe nu mu ñëwee Sénégal loolu aussi moo waraloon. bi mu bi mu nekkee ministre boobu loolu loolu maa ngi ñëw Idriss Seck xam nga bu toogee fii naan moo indi internet Sénégal vraiment itam. loo loolu c'est compliqué ah loolu Idrissa Seck moo ko wax xam nga kan moo ko wax ay auto universitaire Olivier Sagna Steve Steve euh, Steve Atte Christopher Brun ñoo ko bind ci seen livre ci nasaraan ci ci livre bu ñu. publier Université d'Oregon dafa exister mu tudd l'historique du Sénégal de 1989 à 2004 loolu lu am la lu bu ma paree dinaa la jox livre bi nga nga garder ko. nee na tamit euh, lii parti beneen bi mooy ko coon di way. waaw euh, alors alors alors alors loolu tamit boo bëggee ñu taxaw ci leeral. effectivement loolu mu wax dëgg la te encore une fois du moom moo ko wax keneen moo ko bind ku ñuy woowee baaba Dioum nekkoon directeur de la politique agricole au ministère de l'agriculture. mu bind ko ci les mémoires d'un ingénieur africain euh, dans l'antichambre d'un pouvoir euh, du, du pouvoir en, en de, de 1964 à 2014 mu nekk livre bu publié en 2015 aux éditions Harmattan sénégalais mën nañ dem fekk ko fa li mu expliqué foofu mooy Idrissa Seck en tant que auditeur au Pricewaterhouse euh, Coopers en 93 euh, PricewaterhouseCoopers pardon en 93 en collaboration avec le cabinet de Mayoro Wade via le cabinet Mayoro Wade moo defoon audit du secteur du riz moment boobu dafa existé woon lu ñuy woowee caisse de stabilisation et de péréquation des prix mu doon entité boo xam ni moo doon seul à importer ak régulariser le riz sa Seck ñëw def audit gis ni que déjà y a y yaa y un déficit de de onze milliards et de quatre milliards annuels ak la subvention. George bëgg naa la laaj beneen bi non da ma hmm. da nga ma laaj ci sujet mais moom ma yeggale tuuti Babacar. c'est important parce que sénégalais tamit bu ñu toogee seen leaders yi di leen wax ñuy dégg laaj nañu xam yenn ñu xóotal loolu ñu leen di wax ngir mën ci am ay jàngat. alors euh, Baba Dioum mi bind loolu li mu expliqué mooy Idrissa Seck en tant que auditeur d' ailleurs ça profite euh, ça nous ñu leeral euh, lan mooy métier Idrissa Seck pour ñi nga xam ne dañuy calomnier ak wax lu leen neex ci moom audit boobu mu def moo permettre am ay conclusions yu fexe ñu privatiser la caisse de péréquation de sorte que pénurie dootul amati qualité merci beaucoup mm. ñu dissoudre ko de sorte que euh, qualité variété diversité de riz bi dont le riz parfumé dont il parle mën na di yegg si correctement normalement Sénégal mu bañ a amati des coûts lourds mu bañ a amati ay ay longues files d'attente dans les magasins ak yooyu. waaw d'accord léegi mën nañ jóge mën nañ jóge ci ceeb bi. wax ci seppi ngeen seppi seen loxo ci ndabal Macky Sall gi acca Georges bismillah. léegi léegi sànq ne nga euh, li nga xamante ne du ak Idriss Seck ci mouvance bi euh, la mu jur danañ ko gis euh, mais concrètement lan la indi. parce que bu ñu taxawee tuuti ci li nga xamante ne moo di euh, la présence du conseil économique social et environnemental euh, kaddu yafa fa jib ça veut dire que liggéey ba foofu taxu koo demee noonu euh, on a décrié son mode de de management la communication pas que des conseillers politiques mais ñi bokkee ci société civile foofu sax wax nañ ko. alors lu njëkk ci li mu jur mooy li am solo muy paix ak parce que moom joxe na exemple pays yu bëri d'ailleurs lors de ça. xanaa loolu mars 2021 bi réew mi tàkkee bokk ci. maa ngi ñëw maa ngi ñëw ah, ah. maa ngi ñëw au contraire parce que bu fekkoon moment boobu président Idrissa nekk ci opposition muy dóor di buux di xëcc wala di xam taal kon kay tey kenn waxatu ko donc alhamdulilah dal boobu mu indi ak stabilité bi bu ñu xoolee pays yu ñu wër mu xam Mali. Guinée ak Burkina gis nañ la fa xew. bi Covid bu njëkk ba ngay wax de Idi bu tey bi gañewul dara. bi bi ngi nii élection yi. xam nga mënoo enchaîner ay ay questions. ah non mais boo waxee waxee dañuy leeral. parce yow yaa mu laaj ma buñ ma laaj may tontu. waaw bisimilah boo bëggee mën nañ dem fii ba 9h amul. problème waaw d' accord ok tranquillement ah, alors donc pour yeggale solo la. parce que gis nañ pays yi ñu wër bi Covid bi dugg see tension yam fa yokk créer yenn conflits ba l'armée jël pouvoir parce que tamit opposition bi ak société civile ñoo doon yëngal di wane seen mer di toj di manifester armée ñëw jël pouvoir bi ñoom ñu dem tooge de côté tey ñu ngi wut feneen fu ñu réfugié ji donc loolu comme un patriote comme président Idrissa Seck bu amee clairvo clairvoyance boobu bu amee cette vision étatique républicaine boobu mu am ba décider teg ambition am ak intérêt de côté dem jàppale président Macky Sall ngir dal am en tant que chef de l'opposition ngir dal am PROSEC euh, également participer économiquement de par sa compétence ses expériences d'ancien premier ministre bi nga xam ni c'est le premier ministre le meilleur premier ministre d'Abdoulaye Wade en termes de réalisation sociale et économique c'est prouvé par les chiffres Ablaï de l'ANSD mais Abdoulaye Wade waxul loolu alors Abdoulaye Wade ba ma ko fa jëlee teg Macky Sall nee na euh, la mu sumboon la mu mu ngi doog a jóg xam nga ku chantier commence à sortir grâce à Macky Sall xam nga ku nekk xam na histoire Abdoulaye Wade ak président Idrissa Seck donc Ablaye Wade dinañ comprendre bu waxee leen ci sa Seck mais li sénégalais yi war a xam te comprendre ko aussi ci diggante bi mooy que ni Idrissa Seck en entre quatre vingt dix huit et deux mille bi ñëpp toogee bi ñëpp dawee moom moo ñëw jël PDS liggéey ci physiquement financièrement techniquement dem jëli Ablaye Wade ma nga xamante ni. dafa découragé woon toog Paris mu jëli ko fexe nañu ko fale Idrissa Seck l' artisan principal de l' élection d' Abdoulaye Wade en 2000. bu ko ko jox moom kese. donc non bu ko jox moom kese ñoom Landing Savané ngi fi ñoom Abdoulaye Bathily ak ñeneen ñoo demoon jëli ko aussi. quand on dit l' principal. ñoom Bathily nag dans son sax ñoo ko jëli nag <laughs> a avec le risque de forte collusion à l' xam nga li nga wax tam dañ ko fekkee. non non non non ah, li may wax lu leer naa ñu la Idrissa Seck moo taxaw tabax parti bu fort bâtir cette coalition dont vous parlez dem jëli ay Sawade ak keneen ak keneen ñooñu ñu ngi dund mën nañ ko confirmer ou pas participer ci financièrement fisiquement techniquement dalalaat xelu Ablaye Wade indi ko fal ko lan la ñu gis ni moo ci topp mooy ba doom ja màggee mu fexe na mu pousser keneen pour les beaux yeux de son fils loolu mën nañ ci bañ a yàgg yow yaa ci dugg mais pour continuer au conseil économique social et environnemental sa collaboration directe avec Macky même en dehors du conseil économique social et environnemental bëri na yoo xamante ni indil na ko positivement au pays foofu au conseil économique social et environnemental dafa nekk nag institution boo xam ni euh, c'est politique on peut dire donc yenn agissement yi <laughs> vous comprendrez très bien que politique mën na ko lal ou pas. yéen kay da ngeen ne politique leen da ngeen ne carte yéen a ngi wure. non non non Georges li mu wax ah, ni ah. doxalinam ah. naa la jox exemple yu bëri ci yo doxalin yoo xam ni conseil ñoom ci boppam ñoo ko. Euh, approuvé positivement ñoom ñoo ko apprécier positivement ci lu ñuy am comme doléance bu jëm ci président Macky Sall Idrissa Seck fexe ba taxaw ci ba mu réaliser wu mën nañ ci joxe exemple mais amul solo alors euh, donc bu fekkee institution politique la am ñu fa nekk ñu bokk coalition ñenn ñi ànd ak ñenn ñi ànd ci décision wu président Idrissa Seck ñëw jàppale Macky Sall bi mu ko woowee ñeneen ñi bañ ci ànd donc mën nañ comprendre yenn doxalin yu fay am surtout récemment et beneen bi beneen bi mooy d'ailleurs d'ailleurs le fait que président Idrissa euh, génn ni démissionné lu ma nawlu la lu ma rafetlu la parce que gis nañ coow bi fa commencé woon am lui en républicain respectueux des institutions très très responsable il a préféré loolu bokk na peut-être ci li tax mu préféré dem jóge fa ngir da dal am jàmm am ak une bonne marche de cette institution la et pour aussi clarifier c'est-à-dire une une une volonté de clarifier les choses il est candidat maanaam moom dafa mus a am comme li mu wax projet politique gu sotti xam-xamam sotti compétence am ci Sénégal ak fu mu mënti nekk station bu mu mënti nekk président Macky Sall wowoon na ko mu yëngatu ci loolu wane fa xam-xamam ak expérience am jàppale ko ak patriotisme am encore une fois teg ses de côté. tey dafa jot mu laaj mu yeggale liggéey boobu en demandant les voix des Sénégalais ci beneen station muy la station présidentielle ce qui est très très normal et une volonté de clarifier cela de passer à cette nouvelle étape la bokk na ci li tax mu décider delloo li ko Euh, le président Macky Sall. dañ ko léegi moom chef de l'opposition dem dem dajeeg euh, sénégalais yi waxtaan ak ñoom. nee na ba léegi moom mooy chef de l'opposition opposition bi ban opposition lay doon opposition carrément opposition wala opposition xaaritu nguur. alors xam nga moom mu wax mooy chef de l'opposition yaakaar naa ni waruñ ko tuddee noonu chef de l'opposition bi li ko wax mooy constitution. dans l'article cinquante-huit moo définir le statut du chef de l'opposition et pas du parti. leader de l'opposition donc c'est important pour ñuy am jiixi jaaxa effectivement le président Idriss Seck mooy chef de l'opposition tout simplement parce que on a régime on a un régime présidentiel Macky Sall le euh, sénégalais yi fal tab Idrissa Seck comme deuxième mu topp ci moom. ah non non non mais bu bu loolu bu bu bu demee ci Macky Sall nag. bu dugg ci Macky Sall. donc euh, loolu nga wax ne loolu loolu ngay wax ni chef opposition la moom fànku na léegi mënul jóge ci Macky Sall delluwaat ci opposition bi bë a nekk chef de l'opposition. mënul nekk benn laaj Babacar. Ah. Euh, bi président Idrissa demee fekki Macky Sall ngir ñu liggéey bi mu demee fekki président Macky Sall ngir ñu liggéey yéen kan ngeen jàppoon ni mooy chef de l'opposition ak ci fan ngeen ko teg. kon koy yow. ana analyste yu bëri yu tey bu leen koy tey bu leen taxaw ni bu leen taxaw moom warut taxaw wax ni bu dee li ñuy laaj nii luñ la ci mënti tontu itam waroo waroo leen wëlbatiku ne yéen chef de l' opposition jamono ji ginnaaw amul fenn fenn fenn fu ñu ko wéer. li nga wax ni day day wane soit mënoo tontu wala am nga tontu bi bëggoo ko wax man mën naa la wax tontu bi bi mu demee da ngeen ni Ousmane Sonko mooy chef de l' opposition parce que ki arrivé woon deuxième dem na ànd ak pouvoir. donc ki arrivé troisième mooy ñëw donc vous êtes dans la même logique. léegi Idy day génnaat ñëw jëlaat place bi maa ngi yeggali donc bu ñu garder cette même logique. yomb na non lu question yomb ou pas lu sénégalais yi décidé la loo xam ne la sénégalais yi dinañ ci jëlaat décision incha allah en 2024 fii ba foofu nag yéen ci li ngeen tënku pour wax ni Sonko moo doon chef de l'opposition ñun am nañ droit tënku ci pour wax ni a Seck actuellement mooy chef d' opposition puisque il est retourné dans l' opposition. mais ban opposition lay def opposition radicale wala opposition xaritu nguur. mais Idrissa Seck. xam i seen i député sax xam ngeen xam ngeen Idrissa bokk dañuy gën benn bokk yaakaar wala xam euh, opposant bi mu yàgg a nekk lay continuer nekk mooy un opposant responsable républicain. toujours soucieux de la paix et de la stabilité. li ngeen carte leerul loolu di ko non leer ngeen carte leerul boo bëggul mu leer si sa bopp du leer <laughs> xaw ma nag yan ana lan moo li la jox laaj xam nañ ministre yi dañuy génn alors député non xam nga waxtu moo jeex non non mais Georges nee na la ba xam seen i député yi nekk assemblée nationale tam dañuy génn ci bennoo alors le président Idrissa Seck sera un opposant républicain boo xam ni kenn tënku ko comme ni mu ko waxee bu gisee lu jaaduwul dina ko wax ci anam yam koy waxee bu gisee lu jaaduwul dina ko apprécier. politiquement seen député dañuy dem wala duñ dem. suñu député loolu lu ñuy waxtaanee la ci biir parti bi incha allah lu ci am rek dinañ leen. dinañ leen ñaata député ngeen am fi ñu toll nii assemblée. am nañ benn député à l' assemblée. Euh, léegi ñoom jatara d' accord nañ dinañ génn jatara da yàqal ngeen ko wax dëgg yàlla. waaw ñoon xaar ay projet defar stade ak yooyu ay milliards yu bëri mu war a liggéey war a wane dooleem mën-mënam waaye fi mu toll nii de moom dina dem ah? waaw loolu sa appréciation la Babacar yaaxal nañ ko ou pas sa appréciation. la ah, d'accord léegi dana dem li ñu leen ci wax leer na. Hmm. wax nañ ci en interne et président Idrissa wax na leen ko moom day dem ak ay ministres am dañuy dem également loolu kay ay ministres am newuñu <laughs> benn wala wala benn ak genn xam mos na leen fi dal ci Pape Diouf ak euh, Omar Gueye ba ngeen njëkkee génn ci Macky 2013. waaw am déet. est-ce que boobu président Idrissa dafa toogoon ne la suñuy ministre dinañ génn. ok am nga réponse bu leer bu jógee ci kilifa gi pourquoi nga bëgg ci am laam-laamee président Idrissa Seck dina déposer sa lettre de démission tey pareil ministre ba Diattara ak ministre Ali Saleh yi may saluer au passage seen loyauté parce que li ngay wax aussi c'est important ñoom dañu engagé woon aux côtés du président Idrissa Seck pour dem jàppale président Macky tey jii mën nañ ko def ci beneen anam boo xam ne toujours day jural. utilité mais ay magum jëm tamit ngeen di jaabanteloo opposition ñam nguur. génnaat ñëwaat ñi xam nga. Ah. justement ça ça yow logique bi nga am ci dem liggéeyal pouvoir dem liggéey ak régime. yow yaa koy tuddee ñam nguur question de patriotisme la jël say compétence ak sa expérience ñëw jox ko sa réew ñu jariñoo ci bu jotee nga ni. changé na méthode génn naa fa ma doon truc damay dem laajal sama bopp pour lu ñu may jox ma gën a ñoŋal la ma commencé woon ca biir loolu c'est à saluer c'est patriote et jàppee moo ko ay mag yu ñuy jaaba njàlleek yooyu noonu dañu engagé wu aux côtés du président sa Seck gëm idéologie gëm ni moom ni mu nar a doxalee réew mi loolu moo mooy gën ci sénégalais et peut-être il sera incha allah le meilleur président de la République loolu lañ gëm jàpp ne war nañ mën a ànd ak moom génn dem laaj yi voix sénégalais yi dem waxtaan ak ñoom logique pour logique convaincre leen logique pour logique Idrissa Seck dem ministre yi ànd ak moom logique pour logique est-ce que député bi warul def noonu mais logique pour logique député bi loolu la war a def sauf que man instant bi info bi ngeen ma laaj hmm. ñu ngi koy waxtaanee suñu biir parti euh, amul lam-laamee ci benn mbir ah, gis naa nga def euh, petit sourire euh, Marietou Dieng notre Marietou Dieng notre député hmm. bu amee ku ñuy laam-laamee ci loyauté envers le président Idrissa Seck moom bokk ci mën naa ni ci ñi ñu njëkk mën a lim ngir wax ni ñii ñoo loyaux au président Idrissa Seck loolu amul naa table ci moom mais nag euh, comme ni ma ko waxee rek man porte parole dem parti la mënuma ñëw toog wax leen loo xam ni amagul ñu ngi ciy waxtaan ci biir parti bi incha allah bu yàggul dara di ngeen ci am lépp lu leen lu ngeen bëgg mu leeral leen. léegi moom li di lu tax suy wax day sumb dara yeggagul mu sumb leneen attaqué fii dóor fii. ba am sax ñuy wax ñuy laaj ci réseaux sociaux yi ba xam Sidi va à l'école euh, ban loolu ban ban ban stratégie la ban technique la loolu. non mais doorul fenn génn fii ubbi fële dafa toog génn lépp lu nekk ci xolam li nga xam ni jàpp na ni moom lañu war a mën a doxalee ak lu mën a soxal sénégalais yi la maintenant boo ma laajee précisément sur telle chose lu tax mu wax li ou pas dinaa la ci tontu. Mhm, jërëjëf euh, président Idrissa Seck c'est mhm. euh, jamono yi ñu toll ci ñu jëm Sénégal dafa soxla. paix et stabilité pour mën a yegg ci développement économique bi mu bëgg. donc jamono yi la électeurs yi war a gën a bàyyi xel ak jàngat ci président sa Seck hmm. ndax il remplit tous ces critères là Daouda Ba porte parole réew mi jërëjëf jërëjëf Georges ñu ngi ziar Fati euh, mbokk yi ñu yendu ak jàmm ziyaara euh, Babacar euh, ak euh, de ci Diop ak équipe bu RFM mbokk yi ñu ngi rafetluwaat ni ngeen àndee ak programme bi télévision Futur Média dal leen jàmm ci ñaareelu pàcc info matin xibaar lañ koy doxee ma fàttali leen daañu dalal meram ngor ci kanam daañu dalal également daaw de miin ci jàngat bi léegi léegi ñu soobu ci xibaar yi ci yaatal ak Cheikh Tidiane Diaw.